gën a bëgg Taïfin la Sénégal yépp ñoo àndandoon ni pack food dara fayu ko weeru koor gi moutarde ak vinegre pack food dañu taxaw ci seen wet suñu équipe yépp noppi nañu loo jënd ci moutarde ak vinegre pack food ak suñuy pat ñu daal di la koy livrer fa nga ne xoolal suñu arsenal suñu équipe yépp pare nañu lépp noppi nañu fu ay mën a ne ñu livrer la li nga xam ne moom nga jënd ci waa pack food pack food nag ah dañoo mënee suñu boor de dañu lay liggéeyal lii dara fayu ko food am nañu nag li nga xam ni moom moo di maanaam vinaigre de qualité supérieure am moutarde de qualité supérieure loo taamu vinaigre loo taamu moutarde pack food laajal lalla lu mu togg mu neex lu mu togg ci jën mu dem ci yàpp mu dem ci ginaar mu dem ah pack food dëgg-dëgg dara fayu ko vinaigre moutarde macaroni ak produit pack food yi qualité supérieure la lii dara fayu ko weeru kooru jàmm ak moutarde ak vinaigre ak équipe bu pack food yëpp jàmm ngeen fanaane sant sant bu wër waay bëggoon yaa bu ndaw bi ñëwee ba tey moom dafa mel ni sa mbégte mi ngi si sachet bi de ah Gloria bu ndaw daal mooy suñu soppe meew bu faree nii neexee nii ba pare di jar cent francs dong dëgg-dëgg ndekki bu àndul ak meewu Gloria lu mu na reset ak Gloria bu ndaw ci 100 francs dong Gloria amul moroom benn la fii Nestlé gonna pakai taifin lah Paling mah kena pekerja kukis lah Oman berkembang je kukis Di maidan yang nak uji taifin Bandu yang nuwaya khamna lupa perhatan Bëgg naa ku yem xale bu magul atam taifin kenn du ma waaye kii kan la ma sàmba alias Bac uh-huh. déggal ak a neex nag ci loo ne maa bi gis naa la gis maa ngi nii rek. yaa ngi si jàmm bu baax. waaw ça va. yaa ci koor gi wala yaa ngi ci weer bi. man soxna si naa def. ça va ma chérie comment va. sama tante la ah, sa la. naa def chérie maa fi ça va bien ça va bien. naka affaire yi. ah bon ça va bien. kon nga xamante ne bàcc. sama xarit bu baax la suñu waa kër yëpp ko bëgg bàcc bu duggee ci kër gi da ngay uh-huh. ree bay bëgg dee macha allah. ah bon dafa baax trop ci xale bu bëri kii. noonu la baaxee fu ne lay dugg man chaque jour ñu ne ma ana bàcc ana bàcc. gis nga ça va ba yaa ngi si ah, bu baax tur bi naka la. Issa la Issa. yow la tudd Menace ah macha allah kontaan naa trop te eh, xamante gën a kontaan euh, bàcc moom sama xarit la wax dëgg ah, yàlla sama doom ji nag ku ko bëgg ma bëgg ah gis nga ko vraiment moom mooy sama wéttal mooy sama lépp gis nga moom dafa bëri affaire trop ba pare nag baax ubbeeku man ambiance fu mu nekk nit ñi def boo waxee presse danga ne est-ce que déggoon ko ko macha allah dëgg la macha allah macha allah la cat ci moom la yaa ngi topp koor yi bu baax sax dama woor de lu tax doo woor ah xam nga yow fu ma dajee yow nga jommal ma balaa nga dem xale bi duma ko fi xaar xoolal bu ko xaar nañuy wax macha allah rek ñun daal nañuy wax macha allah. macha allah macha allah moom laf cat yàlla ko yàlla. Oh, ma chérie kon pour ñu def noonu. ok on se xam ne après xam naa naa fi ñëw affaire yooyu. incha allah la de mbaa doo ma génn seen télé yi. yee jën ba si ma may bii. borom Mauritanie kontaan nga. waaw waaw yow li la dafa baax na. ah maa ngi lay. waa Aladji. waaw je t'aime. loolu dëgg la moom. bii fee. wala yoo xam naa ko. I love you. lay dégg naa loolu. bii fee de yére mel. Aladji kay wax lu bees bi. ban moo bees. chéri. waaw. mu fàccee ko. waaw waaw. mbam sa ko. ngaa dimbal ko. ne du manta. wallaay ndey tumbe sa. waaw waaw. alaaji. Ngumi Kanta. waaw. sayama boo. waaw. ñaareel xarit ci jokkalam. kuy aawoo yow duggal jaayoo. jàmm nga ma aawoo bëgg naa kuy créé man. kuy aawoo jugal jaayoo. looloo créé ba toll nii. waaye bëgg naa kuy créé man waaye di jël ay concept jàmbur. ëpp na mhm. nuyul sama ami flowers yi leen. sa lumière dafa fort doo ko wàññi. yaaram nuyul ñii ñaata yoon laa ñaata at laa lumière. aawa yi na ngeen def ñoo ngi nii toog maa la lii groupe aawa yaa ngi nii en live la de. waaw waaw yaaram a ngi nii yéen a laaj mi ngi nii. gis nga fu man si jàllaan ëpp na <laughs> kuy aawoo yow jugal jaayoo. Aladji Aladji Aladji waaw. neex na ma kay. Hmm. neex na ma sa bas neex na ma sa neex na ma. waaw Aladji. ëpp na waaw. ay te demal yow tamit. waaw Aladji yamale. dugal jaay waaw. Ah, maa ngi nii ko laa lu bees la xanaa ci kër gi. waaw hmm. dëgg la. sa kii bi dafa rafet sa écran bi neexul téléphone bi dafa rafet. maa ko gën a rafet la. alaaji sama téléphone bi wàcc na batterie bi feeñ na. ah ko sama sa àll ko eggali. nga def yow. la àll ko eggali. non dama ne nga nuyu sama abi flower yi. alaaji. Ah, <laughs> waay ah, ëpp na. alaaji. sama téléphone bi dafa wàcc. waay. déggal lii. munoo ko abal rek. te dañoo fees la dell. waaw. dëgg lu 마요. <laughs> barke yonent bi sama xol baa ngi mel ni wanagu mbott ndax sedd yow seen fil fii.